interpellé chapitre polémique yi parce que mi ngi koy wax lu mu wax ñu ñoo di ko mais am na wax ñu rëy joo xam ne moom mi euh, am na wax joo xam ne yaa ko wax non ma waaw xam ne wuñu ko défendre loolu c'est waaw bàyyi ma expliqué xam nga aujourd'hui tu xam nga mooy li ma lay wax xàmmewuma ne mmh. Abdourahmane Awale Abdourahmane 2024 dem nañ ci Diomaye président dafa bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla affaire bi metti na leen premier objectif mooy lan la ñuy def ba descendre Abdourahmane décrédibiliser ko yàgg nañ essayer ñeneen ñi mooy puisque dem na fële te daf leen war a yokk doole nañu wane ne ki ngay ñëw ki di ñëw Diomaye président war leen indil doole en fait ay problème rek la leen di indil ñu interpellé ma ci question boo xam ne mooy waasoo ci question yi nga xam ne moo gën a sensible ci mm-hmm. Sénégal yow sax yaa ngi tombé ci piège bi mel ni li ma wax dafa garaaw li ma wax garaaw dafa garaaw de wallaay garaawul xam nga lan moo xew mm-hmm. ñaari aspect laa waxee du ma insister sax ci cousinage à plaisanterie parce que ñëpp xam nañ ko mais Mamadou awe Ndiaye Sénégal gii daf fi am élection Lamine Gueye sengoor Gueye sengoor est que dañu waxoon ne waxu waasoo la fii dafa am sengoor Dia est-ce que waasoo la fii dafa am Senghor Wade est-ce que waasoo la fii dafa am Wade Diouf pendant vingt ans fii dafa am Wade Seck Idrissa Seck fii dafa am Wade Sall fii dafa am Sall Sonko Sall Sonko di door a jeex ñu am Ba ak fay man je suis dans l'historicité de la dualité des politiques au Sénégal te ku xam science politique xam fi may waxee nga déglu ma di nga xam ne loolu laay wax bu joomaay santoon Ndiaye Amadou sant Guèye dama naan mais Guèye xeex la entre Guèye ak Ndiaye te bu boobaa kenn du wax ne waasoo la xam nga ki am problème ki am problème dëgg-dëgg ci mbirum waasoo mooy koo xam ne boo ne ko Moussa Sow laa tudd mu ne ah Sow pël nga ne ko Abdourahmane Diouf laa tudd mu ne séeréer gis nga man bu may wax turu nit ñi. Mhm. xooluma géer xooluma géwél xooluma ñeeño xooluma pël xooluma et cetera man j'étais dans cette dualité laa dama jàpp à tort ou à raison que élection bii dualité la sama candidat Bassirou Diomaye fay la tudd candidat bële Amadou Ba la tudd. ñi di xalaat ay affaire affaire pël ak séeréer pour man ñu ngeen baal ma ñoo am un esprit tordu <laughs> c'est la vérité yàq kese moo leen tax a jóg mais lii nii man tey bu ma yoroon une presse écrite suba damay def duel ba et fay mhm. c'est la réalité mais dëkk bi yàqu na ba boo ne ba ñu xalaat pël boo ne fay mais man waxewu ma foofu xam nga loolu nga ñëw wax li loolu moo tax maanaam non mais man li may egg du man eggu fa mais est que man est-ce que man xam nga nag ñi di yàq man ñooñu géré wu ma leen. xam nga lan moo yàqal nañ la en 2022 ah. waaw xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax ma sonn ci explication xam nga lan moo tax ma xam nga lan sonn ci mm-hmm. explication parce que am na ñu ma bëgg. Mm-hmm. ñoo xam ne neexu leen ñuy dal sama kaw. de façon injuste. ñooñu ak ñu mel ni yéen laay expliquer na leen fii laay waxee. Mm-hmm. ñi ci gis esprit waasoo ñooñu la mbirum waasoo nekk seen bopp. mois je parle d'une dualité. entre ku tudd Amadou Ba. ak ku tudd Diomaye Faye. est-ce que sant ak est-ce que loolu c'est la vérité ou mais mënoon na nekk mais tey y a y a y a quelques mois on aurait pu passer élection bi. Mhm. ça aurait pu Sonko ak Sall. Mhm. est-ce que dañuy wax naan Fouta mooy xeex ak ak ak Casamance. mais nit ñi nañu bàyyi seen wax yu ñaaw yooyu. ma yokkaat ci parce que dama ni le soleil se lève tey au Parcelles Assainies parce que meeting bi Parcelles Assainies la woon. Mhm. boobu Amadou Ba mu ngi liggéey. Euh, Ngor Almadi xaw ma hôpital hôtel ba nu mu tudd King Fahd mm-hmm. ma ni la soleil sa couche au aux Almadi mm-hmm. yàqkat yooyu ne dafa bëgg jaxase riche ak pauvre mm-hmm. xam nga ñooñu ñoo am ngeen baal ma ñooñu ñoo am un esprit tordu man fa ñu toog di wax Parcelles Assainies la tudd ma ne le soleil de l'espoir avec Diomaye fay se lève aux Parcelles Assainies bu fekkoon ñu nekk yëmbal dama naan le soleil se lève à yëmbal mm. bu fekkoon Amadou Ba nekk dans un quartier populaire à Rufisque euh, Santhiaba wala Colobane Guy Mouride dama naan le soleil se couche avec Amadou Ba à Colobane Guy murit à Rufisque. loolu mooy la majorité ne comprend pas ne pensez-vous pas qu'il faut. non la majorité comprend man gisuma benn majorité bu comprendre c'est des manipulateurs. am na ñu ne woon sax dëkkandoo mooy wàlle comme que léegi da c'est des ah, da nga commencé da nga commencé adopté yenn yenn jikko yi. ce sont mais prêtez non vous êtes un peu trop intelligent. non non non non non non non non non non non doxuma fenn ci mbedd buñ ma wax ma ko gis nga boo tëjee sa téléphone. Mhm. génn Twitter Twitter sax yeggu fa fa mel ni génn Facebook day mel ni lii xewul. Mhm. mais c' est des manipulateurs je l' assume c' est des mhm. yoo xam ne bëggoon nañ ma dem ci ñoom. demuma fa loolu mooy réalité faites le profilage. c' est des gens yoo xam ne àndoon naa ak ñoom àndatuma ak ñoom c' est des gens yoo xam ne. xam nga fii nag dafa bari ay allergie Pastef Ousmane Sonko loolu moo dafa bari ko loolu c' la réalité. boo leen jegeñee et j' ñoo xam ne le simple fait que dem naa foofu. mais yàq na presque sama relation ak ñoom. waaw ah man leen mais yéen toute votre vie vous avez pris des décisions mosuma leen juger tey je prends une décision. politique que j'assume avec mon parti ngeen bëgg ma ci juger. léegi nag Sénégal nañu bàyyi li ñuy def est-ce que man nga est-ce que da war a mën a jàpp ni toutes ces personnes qui sont avec le PASTEF. tous ces jeunes des milliers pour ne pas dire des millions qui sont avec ce projet waaye yow yaa leen gën a muus wala yaa gën a bëgg Sénégal wala yaa leen gën a yaru wala yaa gën nekk croyant. nga bëgg léegi créer Sénégal de deux groupes ñii baax bokk fii ñoom ñoo baax ñi bokk fii ñoom ñoo bon d'ailleurs dëkk bi ni mu yàqoo noonu dem na ba ci amnistie bi loi d'amnistie bi mm-hmm. waa boor bee dañ ne bëgguñu ñoom amnistie parce que du ñu baal waa boor bee lu ñu def parce que dañ jàpp ne waa boor bee ñoo def mm-hmm. waa boor bee ñuy tuumaal ne ñoom tam bëgguñu amnistie parce que dañ jàpp waa boor bee ñoo def mais nga bëgg jël Sénégal def ko deux parties ñii naan ñii ñoo baax ñii ñoo bon mais tous les pays qui ont sombré ils ont sombré dans ça mhm. man nag Abdourahmane Diouf melu ma noonu mhm. yarewuñu ma noonu wu ma noonu ay affaire de waaso ce n'est pas du tout mon problème